sëñ bi Cheikh Sadibou Ndiaye ñu ngi lay nuyu di la dalal. waaw maa ngi leen di fay. ngay géopolitique ñu waxtaanee euh, téeméeri fan. Macky ci bopp Union africaine te ji euh, ci évaluation euh, ci xayma lu ñu mën a jàpp. ci ci ci cent jours. cent jours yi Macky Sall def si bopp Union africaine li ñu ci mën a jàpp bëri na ndax gis nañ déjà am na orientation yoo xam ne jël na ko au niveau international ak au niveau continental. Mhm. ndax gis nañ euh, moo ñu dénoncé déjà dettu Afrique ni nañ nañ ko dañ ko daggal mhm. problème sécuritaire yi am ba entamé na ay yoo xam ne ma nga jëm ci dëkk yu mel ni ay dëkk dénoncé tam problème sécuritaire yi am ba entamé yoo xam ne ma nga jëm ci dëkk yu mel ni ay dëkku Sahel bi. Mhm. gis ne bëgg démb Mali quitté na G5 Sahel. gis nañ ni Burkina coup d'état moo fa am Guinée ak yeneen coup d'état yu rate yi am. moo ñu tamit coup d'état constitutionnel nga xam ne moo ngi am Afrique donc moom il est conscient de cela parce que moom it am na lu koy xaar dëkkam euh, ay mandaawam jeex na te war na quitter pouvoir céder la place à d'autres personnes donc euh, loolu dafa di orientation yoo xam ne gis gis nañ ko mu koy dénoncer au niveau international tam gis nañ ci xeex ba am ci Ukraine diggante Russie a ak Ukraine gis ni waxtaan ak ku mel ni Vladimir Poutine waxtaan ak ku ni Zelensky bëgg na ñaari dëkk yi ñu daje toog waxtaan ngir jàmm mën a am te liy firndeel loolu gis ngeen ne visite secrétaire général de Nations Unies bi mujj am fii à Dakar ñoom ñaari seen conférence de presse dañoo wax carrément ni dañoo bëgg œuvrer pour jàmm diggante ci waat dellu si waat si diggante Russie ak Ukraine donc mën nañ ni déjà gis nañ ni si cent jours yi am na ay orientation yu claire yoo xam ne président euh, en exercice de l'Union africaine teg na ko te loolu au niveau international vraiment euh, gis nañ ko nit ñi saluer nañ ko saluer nañ ba saluer sax neutralité bi nga xam ne dëkkam di Sénégal da ko adopté par rapport ak conflit boobu am au niveau international mu am ay dossiers yi nga xam ne ñu ngi ko ci doon xaar. ñu wax ne moo gënoon a jemp en tout cas mm. muy euh, li nga xam ne coup d'état yi ñu nemmeeku ci Afrique de l'Ouest ndax sentir nga euh, ni am na benn genre dal ci mbir mi ba mu agseeg léegi. mën nañ ni dal sax yàgg na am ci mbir mi mais teewul ku nekk yaa ngi sa dëkk jàpp ni dal am na alors que Mali. problème sécuritaire bi mu ngi fay continuer G5 Sahel bi ay bande armée ñoom fa yor seen ay armes di déstabiliser dugg si ay village di ay nit donc problème sécuritaire boobu ba tey dañu fi moo ñu fa gaa moom moo ñu def ay démarches moom président annexé de l'Union africaine pour waxtaan ak dëkk yooyu ñu xool nan la ñuy def ba jàmm dellu si waat si diggante ñun ak euh, réew yu mel ni euh, ñun ak euh, maanaam suñu communauté jàmm am fa maanaam problème sécurité terre yi dañ mm-hmm. te loolu li koy firndeel mooy gis nañ waxtaan yi muy amal ak Assimi Goïta ak waxtaan yi muy amal ay Umaru Sissoco Embaló ak Alassane Ouattara mais teewul sanction yi nga xam ne ñoom ñoo ngi ko teg si kaw Mali ñoom gis nañ ni ñoom waa CEDEAO ñoom ñëpp ñoo teg sanction yooyu d'autant plus que Sénégal ci dëkk yi gën a sanctionné Mali la bokk alors que ñun cent camions maliens daan nañ traversé diggante Dakar ak Bamako te gis nañ ni corridor boobu pratiquement léegi dañ ko wàññi wàññi bu baax te loolu dafa nekk di frappé économie malienne mais en même temps dafa am ay répercussions ci Sénégal ndax perte yi Sénégal di am dafa jéggi dayoo mm-hmm. donc moo tax ñu ne diggante Sénégal ak Mali diggante pays yi nga xam ne ñoo composé G5 Sahel waa nañ mën a egg stade boo xam ne sanction yooyu dinañ ko lever ndax sanction yooyu arrangé wul kenn si ñun pour ñu jéem a yëkkati sanction yooyu te loolu lu jar a saluer ndax jàpp ne Macky Sall dafa nekk di plaider en faveur ak kàddu yuñ ko dégg ci mandat Illimix bi mu wax. waaw gëmuma ni nag président Macky Sall kuy plaider coup d'état constitutionnel la hmm. ndax gis na coup d'état constitutionnel ni mu mujjee Afrique gis nañ la xew Guinée euh, gis nañ Alpha Condé ko Mamadi Doumbouya gis nañu régime bi Guinée bi instant yi problème yi fa nekk di am moom ak digganteem ak opposant yi moo tax gëmuñu ni président Macky Sall xëy na sens boobu la doon waxee te ñun dañu am espoir ni moom euh, il est conscient gis na Sénégal esprit bi sénégalais yi amoon par rapport ak Abdoulaye Wade bi mu bëggee troisième mandat gis nañ ni sénégalais yëpp a mobilisé woon ni non au troisième mandat te actuellement dëkk bi nekk na ci crise boo xam ne économique boo xam ne dëkk bi metti na liggéey amul jeunes yi sonn nañ euh, te yaakaar nañ ni li gënoon mooy vraiment mu comme que def na ñaari mandaawam parti wam choisir beneen personnalité parce que fii nu ne indispensable ñi foog ñi ni woon ñëpp dañoo indispensable tey suuf lekk na leen te ñeneen ñoo leen di remplacer. Hmm. donc adduna bi dafa di parce que il faut ñu waxtaan tam entre sénégalais pas entre théoricien droit wala entre borom xam-xam wala déet nañu waxtaan entre sénégalais mu xam ni. Euh, fii kenn indispensable daf ko bandi dañu les hommes passent les institutions demeurent donc euh, mandaawam bu jeexee nag c'est des pouvoirs euh, compétition am que le meilleur gagne kooku ñëw jiite Sénégal nit ñi nekk seen jàmm parce que boogu ñu dugal ci Sénégal ci crise boo xam ne te il il faut tamit ñu avertir président ni ko entourage yooyu ko wër jusqu'au boutiste yooyu ñooñu nga xam ne dañoo gëm confrontation parce que loo wax ñu ne la politique confrontation Euh, voilà donc loolu arrangé wu ko arrangé wul Sénégalais mm-hmm. donc il peut marquer l'histoire d'une brillante et excellente manière te ñun ñëpp Afrique yëpp adduna bi yëpp nag loolu la ñuy xaar ci moom ndax dëkk yu mag yëpp ñoo ñu may xel ñoo ñuy xool ñoo ngi ñuy seetaan ndax gis nañ ni Sénégal potentiel baa ngi fi malgré découverte pétrole bi or yeeg yooyu noonu yëpp phosphate bi tout ça il faut nit ñi xam ni il faut qu'on revienne à la raison xam ni dëkk la ñuy jiite réew la dafa bëri sensibilité te sensibilité yooyu noonu yëpp du ay question de mandat mooy tax nga ñëw yàq euh, vraiment harmonie boobu amoon entre diggante sensibilité yi te ñun dañoo am espoir que ni moom loolu da koy préserver ndax constitution moo ko sant mu préserver quiétude ak sécurité wu sénégalais te gëm nañ ni ci loolu lay dox moo tax euh, question Illimix yooyu mu doon wax ñun bi ñu ko waxee sax xëy na euh, am nañ ci mbetteel ndax voilà des fois tamit nag mu wax nit ñi interprété neneen mais fekk xëy na ko dara moo tax ñoo ngi am yaakaar que ni compétition électorale yi di ñëw daal vraiment si jàmm lay am si njëkk ak teranga euh, parce que moom euh, yàlla teral na ko nekk na président Sénégal nekk na président Union africaine loo xam ne sax Abdoulaye Wade amu ko woon te loolu dafa di vraiment euh, tâche boo xam ne si histoire tâche bu rafet la boo xam ne ñëpp dañ ko rafetlu moo tax ñun am nañ yaakaar daal que ni euh, vraiment il va revenir à la raison. tey Mali génn ci G5 Sahel ndax mën nañoo jàpp ne échec euh, président en exercice bi la euh, ndax lii dina dina gën a dina am benn tache d'huile euh, ci xeexu mm. terrorisme bi. dëgg la dina am benn tache d'huile ci xeexu terrorisme bi mais xam nga Mali dafa nekk au cœur du G5 Sahel au cœur du Sahel. Mm. et ñi formé woon G5 Sahel pratiquement dañ naan participer di envoyer seen ay soldats di envoyer seen ay matériel au niveau du Sahel pour xeex yooyu. Hmm. mais nag Mali dafa di état bu souverain état boo xam ne am na ay orientation par rapport a lutte contre le terrorisme léegi dëkk boobu dem ba gis ni xëy na G5 Sahel bii maanaam orientation yi feneen lay jóge peut-être Occident lay jóge am na naan sax France lay jóge waaw léegi mu ngi tey moom gis nañ euh, problème yi moom am ak dëkk boobu gis nañ mu a ay presse am gis nañ mu exclure sax ba exclure ay ambassadeur am donc xam nañ ni Mali instant yi dafa am tension ak diggante moom ak France moo tax bu ñu demee ba Mali quitté G5 Sahel dëgg la dinañ ni souveraineté am la dinañ ni euh, dafa indépendant waaw mais tamit il faut ñu xam ni euh, G5 Sahel dafa di doon participer ci la xew Mali te participation boobu Mali bañu ko te participation boobu da doon arranger peuple malien bi ndax da doon sécurité ba am léegi nag Mali jël nañ seen ay responsabilité quitté ko ñoom it nañ jël seen ay responsabilité par rapport à ce qui va se passer au niveau du du Mali ndax problème sécuritaire yi am Mali dafa jéggi dayoo du problème mu ay terroriste donc problème bi entre ethnie am na problème entre vraiment communauté am na donc problème yi bëri na te ñoo ngi ñaanal nag régime malien bi ñu trouver ay solution par rapport ak loolu ndax solution bu amee mooy maanaam jàmm dina dellu si waat jàmm jooju yaakaar nañ ni euh, pays yi nekk au niveau du Sahel ñëpp lay arrangé moo tax ñun tamit pays yi nga xam ne ñoo composé Sahel bi ak G5 Sahel pays Afrique de l'Ouest yi de manière générale même bu Mali quitté G5 Sahel boobu war a trouver mécanisme yoo xam ne leen di permettre ñu accompagner Mali ndax Mali leen daal dafa metti c'est trop simple buñ toogee suñuy télé suñuy rajo naan coup d'état Assimi Goïta dictateur ou alors que on ne sait pas nit ñi xamuñu réalité bi am Mali xamuñu normal li la fa xew ressources yañ fay jël di ko sàcc di ko yóbbu xamuñu ñuy financé terroristes yooyu di leen joxe arme ñuy xeex contre militaire malien di leen rey xamuñu ay groupe groupuscule yoo xam ne dañu nekk di commettre des crimes contre l'humanité au niveau du Mali te loolu noonu sensibilité yooyu ñun ñi composé G5 Sahel yi ko xamul dañuy toog yaakaar ni Mali non vraiment dafa bëgg génn dafa bëgg beddeeku alors que du loolu Mali dafa xam ni mën na jël yenn mën na diversifier partenariat militaire am woo Chine woo Russie mais bu gisee ni tamit ñun pays g cinq Sahel dafa am yeneen orientation yu ñu ko bëgg forcer yoo xam ne day jógee feneen loolu da koy pousser à ce que mu quitté moo tax nag ñu doon ñaan le président en exercice de l'Union africaine mu continuer pour parler yi bañ a décourager continuer waxtaan ak régime malien d'ailleurs sax Euh, le président dafay wax danaan moom mook Assimi Goïta dañuy déggante téléphone tout le temps te loolu yaakaar nañ ni lu baax la ndax dina permettre vraiment des pistes de solution ñu am ko ci. yaa ngi koy wax sànq Afrique euh, mu ngi ci G7 tey PIB Afrique gis nañ ne yokk na ba deux mille cent ñuy wax ne observateurs yi wala économistes yi ne lu yees la euh, tey ndax jàpp nañu ne mën nañ ko boole tamit ci bilan wu Macky Sall bi. waaw ah bilan de moom yaakaar nañ ni lépp luñ ci calcul positif rek ko ci boole mais loolu changé wul dara sur la donne gis ngeen au niveau international monde bi dafa évoluer de telle sorte que après évolu effondrement du bloc soviétique en quatre euh, années quatre vingt dix fin des années quatre vingt dix dañoo gis ni euh, monde bi dafa multipolaire léegi dëkk yëpp dañoo commencé comprendre que ni dañoo war a jël seen destin en main waratuñu nëbbutu làqatu ci ginnaaw benn dëkk te ñoo gis ni pays africains yu bëri dañoo nëbbutu seen ay ginnaaw colonie seen colonie ñooy presque ñoo définir seen orientation économique yu bëri wala bu ñu ko définirul ñoom la ñuy toppandoo te loolu dafa maintenir Afrique ci pauvreté wam gis nañ fi ajustement structurel yi gis nañ fi dévaluation franc CFA j'en passe gis nañ ni suñuy monnaie yi sax pratiquement moomaluñ ko suñu bopp donc loolu dafa nekk di tardel Afrique di ñu retardel dans plusieurs secteurs moo tax euh, wax dëgg yàlla euh, li doon gën mooy pays africain ñu jël seen ay responsabilité comme ni ko Chine defee ni ko Russie defee ni ko Iran defee ni ko Euh, d'autres pays j'en passe les pays asiatiques parce que ñooñu dañoo dem ba rendre compte ni il est temps que ñu autonome dans plusieurs domaines dëkk bu mel ni Sénégal tey boo ko jëlee yow li ñuy lekk sax ñun munuñu ko defaral suñu bopp lépp dañ koy jënd euh, extérieur te au niveau international conflit bu amee wala problème am rek denrée day yokk inflation am donc gis nañ ni ba tey pays africains yi on nous parle de continent de l'avenir euh, budget Afrique yokk na alors que on on on est maintenu sur la suñu ressources yi ça ne nous profite pas jëriñuñu gis nañ bëkki démb Mamadi Doumbouya ni bépp entreprise étrangère bu fi nekk di permettre tuñ la ngay jël ressource di ko yóbbu di ko transformer da nga si biir ba pare doo jël yóbbu ñu ñu négocier euh, xool partenariat bi donc gis nañ ni peut-être am na benn prise de conscience bu nekk di am ci peuple africain yi te loolu tamit du sentiment anti tel pays ou anti tel pays c'est une prise de responsabilité des Africains par rapport à leur devenir parce que il faut le faire à un moment donné les Asiatiques l'ont réussi ils l'ont fait les les les arabes l'ont ah, euh, asiatique réussir nañ ko euh, arabes yi réussir nañ ko russe yi réussir nañ ko ak d'autres lu tax ñun africains yi ñu bëgg toujours am chef d'état yoo xam ne dañuy maintenir sous une joute d'une puissance étrangère jàpp ni dëkk boobu bu dul moom dañuy dee duñu dem gëmuñu suñu xam-xam gamuñu suñu suñu suñu suñu potentiel au niveau africain tant que ñooñu am croyance yooyu di dem donc yii ñuy wax ni naan ñu ay budget Afrique dafa yokk ak yooyu c'est bien dina yokk mais ça va ndax euh, population Afrique day yokk ay milliards lañu ñu a doon ñoo ngi ay milliards sax mais dañ nar a gën a yokk d'ici quelques années donc bu ñu topp defar suñu industrialisation dëkk yi ba de telle sorte que mu adapté wu à notre réalité de développement on va être maintenu sur cette pauvreté on va pas quitter ces crises là crises yi ñuy gis nii yëpp coup d'état ou fortune j'en passe problème bi boo ko seetee problème économique la au fond problème de mal vivre problème d'emploi des jeunes c'est tout simplement cela ndax gisoo ne Afrique dañoo gën a liggéey ci diplomatie ak politique euh, que seen koom-koom. Euh, wàllum diplomatie moom mën nañu Afrique dafa di continent boo xam ne yàgg na ci réussir parce que boo seetloo Sénégal dañ naan dëkk bu ndaw la sax mais une grande diplomatie et ça nous le devons à nos vraiment anciens chefs d'État les Senghor Abdou Diouf Ablaye Wade ku ci mel ni Ablaye Wade gis nañ théâtre d'opération bu daan am daanul xaar sax ñu woo ko wala daan jub dem dox fa tànku jàmm ngir euh, problème sécuritaire yi bañ fa màgg gis nañ Guinée avec Dadis Camara gis nañ ñoom Mali Amadou Toumani Touré yooyu yëpp daan nañ gis euh, maanaam pays africains yi yàgg réussir des coups diplomatiques euh, lu si mel pays Afrique du Sud gis nañ ko moom it euh, crise bi am Ukraine gis nañ euh, vraiment euh, le président sud-africain wax jim ci wax ak démarche yim ci def pour wane ni vraiment ñaari dëkk yooyu di Ukraine ak Russie war nañ mën a revenir à la table de négociation ba ci Sénégal gis nañ président Macky Sall ni mu wootee jàmm diggante Russie ak Ukraine mais tamit défendre position neutralité bi Sénégal par l'intermédiaire de Aïssata Tall Sall notre ministre des affaires étrangères donc ñuy rafetlu di gëm ni Afrique wàllum diplomatie moom amuñu benn leçon bu ñu kenn di jàngal te loolu li koy gën a firndeel gis nañ fi Ablaye Wade ba mu recevoir euh, vraiment ambassadeur États-Unis bi donc recadré ci wàllum euh, diplomatie ñëpp ne loolu erreur bu mag la waru ko woon def ndax rafetul mais loolu dafa wane rek ni maanaam pays africain yi am na domaine yoo xam ne wax dëgg yàlla euh, ku leen si wax dinañ la tontu tontu bu am solo daal. ñu lay jaajëfal bu baax a baax Cheikh Sadibou Ndiaye. Sadibou Ndiaye. Sadibou Ndiaye.